mbokk yi jërë ngeen jëfati eh, caana bi nga ànd ak site d'information Thiès 24 eh, nous sommes samedi 24 eh, février 2024 ñu ngi ñu yi nga xam te ne à chaque fois mooy génn ànd ceeg Mbaye Sam Mbaye salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa lay ziar. delloo ziar. suba si. joom mi rek. dafa mel suba élection yi de ah. <laughs> soxna <laughs> gars yi dañ ne woon nañ pourtant dañuy dem élection. <laughs> suba suba la de suba la 25 tey dañu noppoon rek. gaa yi neen gaa yi neewoon nañu am na ñu ne woon le 25 def élection par force. waaw par force suba la suba ma le 25 de léegi yow ah. man na xam nga lu ma gën a jaaxal. dialogue bi. dégg dialogue bi laa dégg ne gaa nañ dañuy dem lundi lundi ak mardi <laughs> dañuy dem. 19 candidats dañoo am. 16 nee nañ duñ dialogue. <laughs> duñ dialogue ñaari léegi. kay Sénégal. nañ jël la majorité rek. ah nañ jël la majorité moo ñett ñi ne dañuy dem ñett ñooñu wax rek bu ñu ñëwaat léegi ñoom ñu def élection yi. mais dañuy wax ñii est-ce que ñee dañ ci d'accord c'est ça le problème. te ñu am te ñu ngi bëgg élection yi carrément am am am balaa balaa deux mandats ji balaa kéembe deux avril tamit nag kilifa gi lii lii tamit. Sénégal gi jaaxal na ma. far ñu fenn nag solution parce que lii moom day ndur ni carrément dañoo mën lii lii lii lii buñ ci génnee. Mhm. su suñu texte yi war nañ koo seetaat bu baax a baax a baax. surtout loolu surtout poñ yi yëpp ñu seet nuñ ko réglé définitivement. 92 ak 37 ak 30 ak yëpp mën nañu war nañu ko xool. parce que yow da nga xam ne à chaque yi waaye gars yi itam luñ luñ bind duñ ko respecté après. <laughs> xam nga léegi di gerte xaw ma nu dee noonu a dana comprendre pas affaire bi naa mujjee jaaxle yàlla xam na loolu. ngay ngay mujjee waaru. bind article ay texte nit bind ko mu leer nañ ngay lii la tëggu ci bare jëkk jékki ne carrément ah, lii baaxut. gars yi indi leneen ah xëy na suba xëy na élection dina am suba. xëy na suba élection xëy na suba <laughs> bureau de vote xëy na nit ñi. en tout cas dialogue bi dialogue bi lundi lay commencé. waaw parce que nee ñaari fan lundi ak mardi. ah nañu xam ba xam nañu xool fii lundi bu soobee yàlla. moom soreetul. nañ nañ xam dara ba xam nañ dem wala dem. ñun daal li ñuy ñaan yàlla. Hmm. mooy na lépp ñëwaat à la surtout ça surtout loolu. ndax problème moom arrangé wul kenn. arrangé wul kenn te a ci man am naa yàqin ne sax lii léegi léegi ñu dépassé ko quoi ah, incha allah. incha allah jot moom. yi eh, moom ci aj màkk gi la la ñëw. Mhm. xam nga dafa amoon conseil interministériel. waaw boo xam ne dañ ko jagleel préparation aj màkk gii di ñëw. Mhm. ñu ne daal juróom-ñaari mesure daal mhm. yu yu am solo jël nañ ko fa bokk na ca ni inscription yooyu yooyu yokk nañ ko ba le 15 mars package bi bii yoon njëg gi maanaam dem na ci million millions cent mille francs CFA. pour tukki waaw pour dem Màkka li ngay li ngay li ngay dem. li waaw. Sud Quotidien. Sud Quotidien de ci dialogue bi ñu doon wax léegi ci la ñëw. waaw danañ def vers un boycott massif. kenn daal. dialogue bi daal nee nañ nee na yéen bi daal nee na fukk ak juróom-benn ci fukki fukki candidat yeeg juróom-ñeent. ñoom nee nañ du dem. du ñu dem ci dialogue ba. aar sunu élection. tam démarqué woon. forum civil. Mimi Touré ak parti bu mag ci forum ci ci ci société civile. ñoom it nee nañu ñett. waaw léegi nag man jarog ba daal. yal na yàlla delloo si xel yi rek. waaw ci ci pèlerinage bi lay ñëw ba tey mille 2024. prix package bi nee na fixé nañ ko 4300 4 millions 300 mille francs CFA. aji Màkk docteur Fatou Diané nag ministre bi yor mbirum jigéen ñi. nee na Màkk moom. Mm. bu kenn xalaat mu bàyyi réew mi ci. Euh, waaw laisser un pays en ruine daal. voilà bokkul ci ay ay ay programme euh, nee na affaire Ngagne Demba Touré. Mm-hmm. day mi ngi xajamal diggante magistrat yi ak greffier yi. Ah. xam nga nag démb bañ koy placer sous mandat de dépôt xaw ay coow yu métti daal. waaw voilà amoon na fa. Anta Babacar Ngom ne da doon euh, da doon campagne Parcelles Assainies. ay ay lacrymogènes fa jëlee. <laughs> waaw. ah ngi noonu. ah, ah bi nee na seize candidats retenus. disent non au chef de l' état jëmale ci dialogue bi. waaw ah, dialogue de sourds daal. ndox ah. Juan Branco dey. Mhm. avocat Sonko ba. Mhm. dal na ci kaw greffe yi de. ah te greffier yi kat moom kii lañu doon jàppale waaye dal na ci seen kaw de xam naa daal. day na war affaire bokk Bokar Samba Dieye aussi libération ñëwaat na ci. nee na banque ba. CBAO ah amaat amaat na defet ci mbir ma de tribunal désavoué waat na ko ndax moom da doon laaj Bokar sàmba Dieye ñetti milliards de francs CFA. ci concertation présidentielle yi. pour fixer datu scrutin bi. ñu ni seize candidats yi moom ci dix nee nañ war nañ ginnaaw loolu. d' accord ñu ci. Walf Quotidien. Walf Quotidien audition houleuse da Ngagne nee na magistrat yi day. dal nañ ci kaw greffier yi. greffier yi yi moom dañoo wane seen maire ci tribunal ba. Ah, voilà dialogue dialogue politique bi nag moom. nee nañ kii di opposition ak société civile. seen carte invitation moom xotti nañ ko sànni fële. loolu mooy bokkuñu. te lii moom bu ko ne moom dialogue wax dëgg mënu faa am moom. du sa am du UMS condamne l'attitude des greffiers. ginnaaw bi mu defee photo Macky Sall. wax ci dialogue bi appel au dialogue. titre ni la guerre des tranchées. voilà mu nee daal. Mm-hmm. dialogue bi daal dèjà mu nga jëm foo xam ni daal. voilà guddi gu bët sërëgul daal. ci dialogue sur la date du présidentiel. Mm-hmm. nee na Macky booy boycotté. ne gaa yi yi daal boycotté nañ ko. waaw waaw. voilà. quelle légitimité pour la dialogue. moom ab sa laaj boobu la samp mu ngi noonu. Hmm. lii daal moo lay won ni daal. dialogue bii daal. ah. dialogue bi daal dafay day na war gaa yi gaa yi nag war nañoo delloo si xel yi de xam nga man li ma jaaxal. ñoom ñëpp doon tëb naan président na fixé date bi na fixé date bi. ah bu ñu leen wooyee nag ni leen nañ leen toog nag. toog leen yéen ngeen jàpp seenub dat. waaye daal ba pare ba pare ngeen tooguma. ah man pour déterminer la date de la présidentielle. la fin de non recevoir. maanaam lànk gi ñene opposition bi lànk rek. voilà concertation yi nee na lundi lañ ko prévoir ci jàmm nañu mm-hmm. mais déjà seize des dix neuf candidats. Euh, wan nañ ginnaaw appelu Macky Sall bi mu ngi noonu euh, ñu ni aussi même format boobu buñ ko maintenir société civile moom du ci bokk voilà aar aar sunu élection aussi na nañu invitation Macky Sall waaw waaw l'UMS e, aussi yenn bi ñëw na ci euh, benn communiqué bu mu def ginnaaw incident yu amoon ci tribunal ba ba ñuy déglu Ngagne Demba Touré te greffier yi créer woon ko foofu pour wane seen seen seen maire lu na l'UMS recadre les greffiers greffier yi nag moom waaw dëgg yàlla voilà nee na Sénégal ren nag di am na quota douze mille huit cent soixante pèlerins ñu war a ñu war ñu war a dem Makka waaw xam nga xam nga affaire yi quota la moom ah dialogue sans voix la wax de waaw voie voie bi nag mooy VOIE yoon. dialogue boo xam ni. dialogue boo amul yoon li oh. moom ci impasse la jëm moom. <laughs> voilà. ah kéemaane na. Ah, dialogue bi daal yéen daal yàlla daal na ci jàpp rek. voilà. mu ne le dialogue diviseur mis hors sujet <laughs> initié par le président Macky Sall. Ah nee na seize candidats sur dix neuf ont choisi de se retirer de cette initiative comme li ñu doon wax léegi seize organisations de la société civile bañ nañ li nga xam ni moom la ma Sall tracé aar sunu élection décline et dénonce un mépris de la souveraineté populaire xam nga yii yëpp ay jafe-jafe la yoo xam ne que yu yu yu jafe surmonté lay doon. surtout loolu. voilà mais nag voilà voilà. Euh, quotidien daal nee na la seule issue de sortie de crise pour le pays mooy le dialogue national voilà nee na nag faamu APR yi moom ay jafe-jafe moom mu ngi fay mu ngi fay gëj mujj di fa di am rek nee nañ groupe nee nañ nañ groupe whatsapp ba sax <laughs> kii nañ ko tëj nañ ko seen group whatsapp <laughs> fermé nañ ko ndax ca group ga lañ nekkoon di dàgg sante <laughs> le national. Ah. Macky face au refus. refus bu xonq cuy la fi def. seize candidats une partie de la société civile boycott la rencontre. Mm. xam naa ni moom dialogue bi moom wax dëgg yàlla daal. Oh, voilà. voilà nouvelle polémique haute sur sa double nationalité nee nañu Khalifa Sall daal. Mm. tëj na débat boobu. waaw xam naa ni ku xool yéene kaay bi nag. di nga gis naka naka la ko tëjee. naka la def ba ba tej ko ak yenn preuve la la indi. voilà voilà date de la présidentielle ci la ñëw ak lànk gi nga xam ni moom la gaa yi lànk dem ci. Eh, dem ci dialogue bi. Mm-hmm. Anta Babacar Ngom nag Parcelles Assainies la demoon. ñu ne daal dafa def manifestation non autorisée. waaw ba nga xam ne daal. Mm-hmm. Ah, gaa yi ñoo fa ñëw dóor fa ay lacrymogène. waaw tas leen. <laughs> bataille présidentielle. boo gisee photo bi rek ya ngay mel ni. fut <laughs> fu moom avant ou après le 2 avril la wax. dër <laughs> gis nga ko de nee na Thierno Alassane Sall. <laughs> Cheikh Tidiane Dieye. Mame Boye Diaw. Diomaye Faye Anta Babacar Ngom et loolu mooy avant bi <laughs> après bi xoola xoola photo yi la ci def gisoo Idrissa Seck waaw ba xoolaat ko bi ci biir góor yi numéro 3 la dóor Aliou Guy mais direct néew. non. je xoola xoola Amadou Ba. xoola bun bun mooy gardien waa kii waa kii kan la. fële xam saa moom mooy mooy gardien xam saa. kii comment dire kii kii la eh, eh, Aliou Ngoye Ndiaye. mooy mooy rëbb. <laughs> <laughs> inclusif. le FC 25 di ñett amaki. voilà ñoom it daal lànk nañu. demuñu. <laughs> nee nañ am na crise bu am na Croix-Rouge sénégalaise. Mm-hmm. ndax travailleur daal. dañoo toog juróom benn weer kenn fayu leen. waaw métti na. presque tout le monde vote non. nee na dialogue boo xam ni moom. daanaka ñëpp nee nañ ñëpp ñëpp bañ daanaka. yàlla dialogue politique bi nag nee na lundi lañ koy tijji ca ñeenti waxtu. Mm-hmm. ca conférence de presse. conférence centre de. voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ngi noonu. kon ne waxtaanee ñu doon. dañuy waxtaanee mbirum mbirum mbirum date bi. Dakar Times. Dakar Times contre la libération de sonk ah lii moom kii ma ne na daal. ñàkk bañ a dem ci dialogue bi. ëmb na loolu ay dafa am ay candidats yoo xam ne. Hmm. bu bëgguñu suñu libéré sonk waaw xam naa loolu nag moom dañ leen di bàyyi rek ñoom ñoom. l'informateur l'informateur audition houleuse de Ngagne Demba Touré. l'union ma l'union des magistrats du Sénégal tape du poing sur la table. magistrats yi daal affaire boobu kii nañ kii na ci de. waaw parce que gars yi nag dañoo attaqué magistrats yi de. waaw vraiment vraiment affaire bu daw yaram la woon. voilà l'évidence nee de Air Sénégal. Mm. malade de l'incompétence de sa direction. xam naa ni boobu mi ngi noonu. ñëwaat na ci dialogue bitam tam nee na daal Macky daal finalement. xanaa Amadou Ba lay dialogal ak Idi ak Boun. kenn ki gis nga seen photo yi de. Ah, Boun Boun Macky Amadou Ba ah. Idrissa Seck. <laughs> lii de wax de lii moom du dialogue. gise gise gise ah, waaw dialogue national 18 organisation de la société civile se démarquent société civile 18 organisation ñoom waaw voilà Thierno Alassane Sall nag nee na dialogue bii moom du dara lu permettre magis Sall mu toog après le 2 avril mu toogaat ci kii bi voilà. mi ngi mi du dialogue. Ah nee ca table hmm. jaxanaa. <laughs> nag moom. Eh, Jackson suñu joueur boobu. Hmm, nee na day il vise un premier trophée xam nga Chelsea ak Liverpool. ci dimanche bi la ñu la ñuy jàkkaarloo. voilà. yàlla na ko yàlla kii rek. waaw. voilà. voilà mbokk mi ngi noonu lii moo gën a fës si bopp gaa yi nga xamante ni moo xëy tey jii samedi. ah yaa moom ko 24 février mbay dégg ngeen mbay sax mbay ne élection yi xam naa daal suba mbay ñu xool rek <laughs> bureau de vote suba <laughs> ñu dem cee dem xool <laughs> mu ngi noonu ah, moo a xam te ne moo xëy tey ñu nekk nag ah, yi xam te ne moo di génn chaque jour ñu ci ànd ah, technique bi maam Diarra Gaye woon ci faram fàcce yi nga xam te leer di daje ba suba incha allah.